Assalamualaikum wa wabarakatuh. wa barakatu bi ma ngi lay nuyu di nuyu wa al alxadimiya di len jaajëfal bu baax baax Wa ko noonu waxe bis bi tey nag noonu doon bisub cheikhul khadim ndax cheikhul khadim mo santone Cheikh Mamadou mustafa bis bi mu wacce liggéey bu dikete mu taxawoko ci ca njabot gi ndax bis bi kat moy bis bi nga xamni moo gënaloon Seexul Xadim ndax Seexul Xadim moo ñaanoon ci xasida gu ñu Mawaahibu Rahmaan di wax naan yaa rabbi ijal xayra ayaami yow ma alxaak suñ borom defal bis bi gën ci samay bis doon bis bi ma ne yow muy bis bi mu ñaante yu waxte yu bare bare bare noonu ko waxee nag yàlla dogal bis bi nag ñu exposition bi mooy ñi nga xam ne ñoo yor wàllu culture bi muy njàng mi yu mel noonu ñu def at mu jot nag ñuy tànn génn góor yàlla ngir fàttaliku ko ngir ñu mën cee royaat ndax jamono ji ñëpp xam ne royatif xam naa jafe waaye nag ñu mën a am na ni nga ko waxee tey jii nag ñu ñu defar ñu def ko nag sëñ Daaru Xasan mi nga xam ni dañuy wax ni mook Seexul Xadim ñoo bokkon nekk ci daara Maam Mor Anta Sali yàlla dogal na bi Maam Mor Sali wàcce bi liggéey bi Seexul Xadim wootee wooteem bii ci ndigal yonte bi mu bokk ci ñi njëkk ñi njëkk jébbul ndax moom mooy juróomeelu ñu jaayante sëñ Daaru Asan nag doonoon yi la goo xam ne Seexul Xadim ko ko nawoon la ndax soo xam daana wax sëñ Asan la ko góor yàlla di jiitoo fa boromam nee na du doon du doon lu góor yàlla takk ndigam di ko def nee na boromam la ndax nee na nee na gawar la bopp ku yéex rek boo xefee moo dem mu dox sa kanam kon doon ku soo xadim fonkoon daal wax ci man moom yu bare bare bare bare bëri euh, waaw kay jërëjëf sëñ bi léegi kon ñu doon wax naan kon suñu Darou Assane Cheikhul da koo xamaloon ni euh, jëmmali ngeen ko jox ne bi am na ngërëmal yàlla am ngërëmal yonte bi moom it gërëm na ko benn bi toppit mu doonoon jàmbaar joo xam ne bii euh, lu histoire mu sënatali mooy xam ngeen ni Cheikh soxna Fatia mooy tawab Cheikhul Khadim bu jigéen xam ngeen nii yàlla dogal na sëñ Daaru Asan moom la ñu ko joxoon waaye wax nañ maanaam bi ñu ko joxee soxna Faty wër na ci ay kilifaam di ko di ko laaj di laaj ñu bëgg xamal ko sëñ Daaru Asan wax nañ ni ci kilifaam gi mu dem da ko ne sëñ Daaru daal kurut sa wajur maanaam moo ko gën ba mu ci toppit sëñ Mamoor Jaara ñëpp ko xam moom la ñaan magi mag te seere bi si xam doon seere ñoom ñett la ko boole woon sëñ bi daa waxoon ne sëñ Daaru Asan Jaay sëñ Mamoor Jaara sëñ Mbàkke Kajoor la góor yalla di jiitoo fa yàlla lu suñu borom neex doomu aadama moom mu defal ko ko la waaye lu góor yi takk ndig di ko ko def kenn kenn du ko defal kon mu doon wóolu réem wax nañu sëñ Maam Mor Jaara mas naa gës naa gëj naa gis sëñ Daaru Asan lool daal di bind ab leetar ndax ñoom dañoo soqoon kóllëre ndax sëñ Daaru Asan daan naafila téeméeri rakka bi sit kamil sëñ Maam Mor Jaara ni ke noonu ñu doon ay ay kóllëre di jaxasoo sëñ sëñ Maam Mor Jaara gëj koo gis bind ab leetar yónnee ko di ko xamal ne dama balaa gëj a gis wax ne sëñ Daaru Asan ba tontu ko ba noppi daal di dagg ci boppam karoog bi jaaw dugal ci leetar ba ndax ko man de bi ma gan gi ganesee ak léegi damaa talatul dara kon ca ca xam nañu moom ak dundam lépp ci jaamu yàlla la ko doon def waaye moom ragal gu mu ragaloon yàlla ak jaamu gu doon jaamu yàlla taxoon na bari na yooyu sax wax dëgg du neex a wax waaye daal ñu xam ne daal tey moo ñoon euh, tànn dëgg dëgg dëgg ab royukaay sëriñ Darou Assane ab royukaay la woon lool. waaye nag la ko ko may mooy Seex Xaadim da koo defar ba nopp ci moom bi mu noppee ci moom nag dugal ko ci ay gox di fa defare yaakaar naa li mu seexal ci ci ay seex lu mu néew néew li mu defar mat na ñaar fukk seex ak benn wala ak ñett ñoom ñëpp seen tur ñu ci biir exposition eh, exposition bi dëkk yi mu sancit ak daara yi mu doon eh, gorog ak ay karaama diggante ak sëriñ bi yooyu yëpp mi ngi ci na lépp da du neexale waaye loolu daal xam naa ni mas na mas na koo tënk ci dundu si dara asan incha jërëjëf jëwriñ dikk ngeen dikk ak ñun ci jëmmi sëñ Darou a Ndiaye am na solo rek ko xam naa dañ ci toftalee benn laaj bi nga xam ne day aju ci maanaam exposition bi nga xam ne mën nañ jagleel ku tedd kooku kon nga dikk ñun ci ko mbokk taalibe yee doxalee daal maanaam exposition bi waaw exposition bi moom dañ koo tënk ci ñetti anam aspect bi ci njëkk bi mooy dañ ko def version française def ko bu araab ak bu wolof euh, fii fii ñu nekk nag ci exposition bi version française bi moo fi nekk ak wolof bi ak foto yi muy ak muy Serigne Darou Assane moom it ñu tënk ko ci ay bunt bi ci njëkk dañoo xam ne Serigne Darou Assane mooy kan ci awas kanam ak ñi mbokkal waaye teg fi mu jàngee waaye teg ci yenn dëkk la sanc waaye teg ci digganteem ak sëriñ bi ak jaayanteem waaye nag ay karaamaam ñu andi ci tuuti rek ndax xam nga daam lam si lépp du neex a wax waaye wax nag ñim seexal wax ay xalifaam wax ak wàccub liggéeyam maa noonu lañ ko tënkee ci euh, muy ci ci ci biir exposition bi nag mooy ay xalifaam nga xam ni moom euh, ki ko maanaam ki ko njëkk a wuutu mooy sëñ Fallou Ndiaye doonte sëñ Fallou Ndiaye du ab taawam waaye ku ñuy wax sëñ Abdourahmane mooy ab moom nag dafa teel a wàccub liggéey waaye ginnaaw bi ma wàccub liggéey moom sëñ Darou Assane ki ko njëkk a wuutu mooy sëñ Fallou Ndiaye mooy xalifaam bu njëkk ka ci topp di sëñ Mbaye Fallou sëñ Ousmane Ndiaye sëñ Awa noonu lañ ko toppee ba ci sëñ Cheikh Fatou Sylla Ndiaye sëñ ba ci kii ko wuutu fi tey jii nii di sëñ Abdoul Khadir di ko ñaanal mu yàgg fi ci wér kon daal noonu lañu ko tënkee incha allah ci ko ko wër rek yooyu yëpp da ko ci incha allah